asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk internet yu seen football tv dal leen ak jàmm képp koo xamante ne daga ba si chaîne bi la bul xaar abonné ci liggéey ko boobu ngay vidéo bu ñu dugal maa ko seetaan bul fàtte tamit un vidéo bi c'est très important mbokk yi euh, suñu gaynde bi franco sénégal bi Lis Moussembeni dafa am entretien ak journal bi ñuy wax record dama leen koy jéem a tënkal rek ngeen xam euh, lan la ci wax tout d'abord dañ ko wax euh, jamono bi ci début saison ni mu demee mu ne ça va donte premier match bi la am gaañu gaañu mais léegi moom alhamdulilah euh, mu ngi am wér bu baax baax ñu nekk kontaan yi xanaa da nga kontaan loolu la ñu wax mu ne kontaan na trop. parce que moo ngi dugale ay bii moo ngi def ay prestation euh, voilà ñu ne que relation nga am accès entraîneur bi lee ñu bëri ñoo yaakaar ne ngeen am problème parce que doon woon la teg mu ne non non non sama xam ne am naa benn niveau bi am naa benn qualité bi et que blessure yi bu bàyyi woon rek euh, dinaa ñëw sama niveau bu baax a baax laa am euh, ak suñu coach bi ñu laaj si équipe nationale ñu ne que équipe nationale moo ngi sa xel waaw am déet mu ne moo na jouer. Euh, équipe nationale du Sénégal xam nga euh, voilà parce que moom dafa jàpp ne entraîneur bi fi mu nekkoon la nekk maanaam Aliou Cissé dafa waxoon ne képp ku xamante ne def nga ay prestations sa club di nga ñëw équipe nationale du Sénégal donc moom xelam loolu la dana bu defee ay prestation jàpp na ne war na mën a ñëw Sénégal ñu nekk naka nag CAN 2022 moo ngi ñëw ndax bokk na si say objectif mu ne CAN bile objectif numéro un la dina def le tout le maximum. Euh, def ay prestation clubam Sheffield United deuxième division Angleterre ba ñëw si euh, Coupe d'Afrique bi leen beneen question bu xamante ne posé nañ ko ñu ne nax ndax euh, jamono bi am nga contact ak suñu coach bi Aliou Cissé mu ne non amuñu contact mais dafa jàpp ne comme fa jàpp ne bu defee ay match yu baax di dugal ay bi Aliou Cissé du ko du ko participer euh, bi ndax moom gis na concurrence bi nekk équipe bi Sénégal métti na lool moo tax journaliste bi dolli concurrence baa ragaloo loolu boo gisee attaquant yi mu ne non non ragal na loolu équipe boo gis muy club dafay nekk lenn rek moo leen may place mooy nga dugal ay bii am ay esthétique maanaam passe décisif bi loolu rek boo ko defee muy club muy équipe nationale mën nga am san sax titulaire beneen question bu xamante ne posé nañ ko ñu ne que instant yi jamono bi gis ngeen ne Sénégal qualifié na ndax yaa ngi seetaan seen i match mën a tout le temps de seetaan match Sénégal tout le temps tout le temps gis na ne progressé nañ bu baax a baax a baax si jeu bi ñu posé ko question ñu ne que yow yéen gaynde nga amal contact si équipe nationale mën nañu bëri mais ki muy gën a waxal muy cousin am di Edouard Mendy di gardien bi dañuy waxtaan ñoom ñaar aussi tamit cousin am la et tout xam nga dañuy déggoo lu bëree bëree bëri donc si tënk rek euh, jàpp leen ne positif am Lys Moussa Mendy mooy mu joué CAN 2022 boo boo xoolee tey waa record moom la ñu xëyee di wax ne Lys monsieur Mendy pare na pour ñëw équipe nationale du Sénégal un deuxièmement dina def lépp lu mu mën témtalaay kattanam ba CAN bi di ñëw Aliou Cissé convaincre ko donc mbokk yi lii moo nekkoon vidéo bi ci commentaire yi man ngeen wax seen xalaat ak seen gis-gis ma leen di jaajëfal jëfal leen wax ba beneen sur Senfootball TV